mbokk Samagal TV bokk internet yi ñu ngi ci huitième édition Saladel fii ci Tëngéej ba léegi tey nag maa ngi taxaw ci box boo xam ni champion bi fi nekk moom dina ma présenté wu wax ma ban bergerie la kilifa gi ziar naa waaw maa ngi lay ziar euh, di rafetlu sa teewaay ci ci box bi. Euh, bi mooy bergerie Baye Gaynde nekk HLM 4 en face pharmacie Ahmed Bathily. waaw daje woon nañ fila. waaw tase woon nañ ci fila bi di ñaan yàlla ñu dajewaat ci yeneen yi fois. macha allah macha allah. ma benn maa bu naan Aziz. waaw Aziz moom ma nga kër ga. kër ga waaw moo toog tey bii paa dafa. waaw maa ngi indi black laa indi. black ok. Euh, indi résistance résistance rek dafa dem concours jeune mâle. donc moo tax fekkoo leen ko fi. waaw mais naa ko naa ko jël foofu indi ko fii. d'accord ok tey euh, nga ñëw def deux box euh, bergerie Baye Gaynde nga nekk HLM ñu xam la ci élevage ngay liggéey liggéey bu ci élevage macha allah. Mhm. Euh, yow ba bañ na ko ba tax nit ku ku bëgg élevage moom la recommandé ndax liggéey ba nga ci élevage. waaw dañuy sant yàlla rek xam nga moom élevage moom suñu passion la. Mhm. dañ cee yàgg nag ñu ci bëgg a yàgg donc mu nekk loo xam ne dafa bokk ci ñun daal. moo tax chaque jour dañ koy jéem a jëmal gën a taxawal daal suñu liggéey gën ko wanee pour nit ñi mën koo gis. maal bi nga ni moom mooy black. waaw maal bi mooy black. Euh, black euh, Massayer la ak Abou Bilal côté papam côté yaayam Neymar la ak Tahir Neymar doomu alhamdulilah Tahir doomu Bachir la. Hmm. donc moom foofu la cosaanoo. foofu la cosaanoo. Euh, sa wala euh, non dama ko recruter temps ci euh, jibril wad xam mu un grand éleveur ah, bergerie Jamil wa voilà Jamil mom jox vraiment nek suma grand bu suis baax mu am ñaata mo deux ans et demi deux ans et demi wa machallah euh tay nga ñew lan lan nga bëgg ci bon xam nga mom am day def mensuration mhm. day def esthétique xamna après di mu def

ak les Ndiaye Aminta les Nations Unies la donc moo esthétique dayo bi nek dal d'accord voilà ba ko ñëwee léegi Christelle. ci 3 mois moy agnel bu ndaw bi. bu noir et blanc bi domam la. waaw kër tamit euh, mu confirmer dal lu muy lu muy def dal Ben dom la indalé quoi. waaw ben dom la indalé mais ma gis fofu ben dom ba nek fa ay agnel yu rafet ñoñu ay yeen produit la. waaw agnel yeb man ma leen produire. donc on demay liggé ci ay mal yu bëre. ko maa ak Sadio Mané di dom ci Renaissance di frère Aldibo. Momit it domam yorna ben mal, aussi bu tuddu capitaine nek ci doomu Boy Talla. nekk Boy Talla production donc yooyu daal laa indi bi ma ñëw ñoo jur añeel yooyu waaw ci kër gi lañ juddoo maal bi tamit ànd ak ay femelle yoo tamit ñoom ñëpp maa leen juddul maa juddul seen maam seen maamaati maamaati maamaati maam lépp maa leen juddul ci man lañ juddoo waaw kon grand bergerie Baye Gaïndé euh, yow naka ngay liggéey ci sa élevage bon la dire que yow yow fa savoir ba xam yow da nga nekk ci élevage yu commercialisation laadum wala da ngay nekk tamit ci beneen élevage boo xam ne euh, comme bu tabaski jotee wala dara da ngay soxla damay da ci liggéey waaw mais damay liggéey ci yëpp mais man euh, du ma defuma fixation ci li may def daal. mais xari boo xoolee seen finalité ñoom ñëpp mooy euh, mooy ci ci ni la ñu mujjee ñoom ñëpp de. ak lu mu munti doon nag. moo tax nag ma dama ci jëfandikoo bu baax. Hmm. di ci tëbaskee di sama di ci génn suma ndawalu kër tamit. macha allah voilà donc loolu moom. Hmm. n'empêche aussi. Euh, comme yàlla def na xar yi xaw nañ takku tuuti. dinaa ci mën tabaski génn ci ay loo xam opération tabaski aussi. tey ci nag mën cee jaay ba pare téye géniteur xanaa loolu moom bëgg naa éleveur di ko def waaw loolu mooy ñu xar. mais xar bu dem bu ñu yeggul foofu ci élevage. amul finalité. amul finalité vraiment donc xar boo xoolee léegi lu baax fépp la am lu rafet fépp la am gétt goo dem di nga fa gis lu dàq sa xar waaye di nga fa gis loo xam ne sa xar ko dàq loolu nag moo am fépp bu ñëpp nag amee lu baax donc dañ ko war a yaatal ñëpp jot fu mu nekk ñun suñu problème mooy laadu mi dañu war a fexe.

ñu autosuffisant en mouton de tabaski. te nag éleveur laa dem yéen ñi war ngeen euh, ab ginnaaw foire yi war ngeen taxaw ci loolu. non man li, man loolu man dama ko def man loolu lay liggéey fu mu nekk parce que yorna association di koy diriger. dañuy liggéey ci loolu bu baax baax pour l'autosuffisance en mouton de tabaski. important loolu. Euh, euh, laa tamit du préciser rek taxaw xar yi de raay def. non xari, yi mënuñu nek nek ay xaru salon. di nekk non non. finalité bi. Uh-huh. moo nañu fexe bu ñu buggee mu am njëriñ. nañu fexe ba la population appropriée wu. Euh, le mouton laadum di tabaské parce que non seulement qualité yi bonne qualité qualité viande bi du Ben est-ce que comprend y a moins d'un an d'une communauté utilisée pour tabasquer. Mhm. donc fi tu perte deux ans tu gagnes en argent tu gagnes en économie aussi parce que xar boo narete pour deux ans pour me tabaski si tu es là, tu as sept mois 8 mois 9 mois mu me tabaski donc c'est jàngat que nous ñu a def la daal bu baax a baax. gannaaw je naa ci. ñu euh, ñu Inchallah, vous serez les bienvenus. numéro. 77 613 47 69. HLM 4 en face pharmacie Ahmed Batili. ok grand merci. jërëjëf de de Nation teewaay.